li ma fi àndal nag tey fekk ci fi d'organisation bi fas nañu yéen ci wàllu courant def sax loo xam ne mosuñu ko def maanaam bàyyiwaale xel nekk gi sëriñ bi nekk ci Mbàkke Kajoor te ordre saa bi buñ ko daan wax dañ naan rek ci juróomi fan balay màggal gi ak juróomi fan bu màggal gi weesoo waaye léegi bu sëriñ bi ñëwee ci dëkk bi de hors de l'État bi tàmbali la kon donc dèjà yokkute fas yéene nañu yokk ci lool ba ñaar fukki fan ci weeru février courant dafa coupé ci wàllu accueil wàllu accueil yaakaar naa ne euh, sëriñ bi ju na lu am sol ndax président de la République dafa bëgg ba këru diine yëpp daal di am jumtuwaay yëpp yu fa te xam nga sant bi nga xam dina mën a accueillir gan yi loolu dafay wane ne président de la bàyyi na xel Mbacke Kajoor ñu ngi bàyyi xel këru diine da xam nga programme la bu nga xam ne cité religieuse yëpp maanaam bépp dëkku diine ndax euh, bi nga xam ne lu fa war a am dinañ ko fa def ba mu nekk dëkk yoo xam ne dëkk yu mucc ayib la waaye Mbacke Kajoor bi ci raw ndax Mbacke Kajoor fii la lépp tàmbali